dañu demee ba xaalis ba ñëw bépp ñu def ko ci mu jeex ñu ne nag rust nañoo dem ci réewi arab yi di yalwaaneti dali nag yéen waa réew mi yéen a koy mottali sëriñ Falilu ñii xalif général de Mouride ma ngay tubax jumaam te noppeegul waaye un million la war loolu par mu ne waaw di ko joxe Serigne Cheikh cent 500000 la joxe Serigne Bassirou Mbacke 500000 la joxe yoonu Tijaan wépp 500000 lañ joxe te menn at la ñu continuer nag di ko liggéey ba liggéey ba noppi Mouhamadul Khamis dee na fi ba Assane II wuutu ko kero inauguration ba ñu invité Assane II bi Assane ñëwee. ba ñu inauguré ko ba noppi léegi Mat Lamin Jéen ma daan jiite jàkka ju mag ja ginnaaw ji magoon ci ndakaaru moo yilimaan ja moo wax ne jeneen ju mag ju ëpp ji bu fi nekkee may tuxu ja ca ja doon yilimaan ja xalif généralu Tijaanu senegaal xam nga ñoom xalif général de Tijaan euh, considéré wuñ ko mu dëkk Sénégal Cheikh Mouhamadul Xaakir mooy président Sénégal président mooy xalif général de Tidiane Cheikh Mouhamadul Xaafis Cheikh Mouhamadul Xaafis ma nga dëkk ca Égypte kooku mooy xalif général de Tidiane Sénégal rek ku fi doon xalif général daal fii nga ko doone waaye doonoo ko ci fépp loolu moom nekkul. léegi euh, bi nu egsee ma ne ko nag xalif généralu euh, Tijaan ca Sénégal moom it ginnaaw mooy xalif général ba te borom xam-xam la mu jàpp ne jumaa ju mag ju fi nekk te amagul ilimaan moom mooy doon ilimaan yi ñaar ñooñu ñaari Tijaan yooyu ñoo ko doon xuloo waaye noonu suñu yoon nekku ci te bañ demee ba nga xam ne bii sengoor jaaxle na ci Doudou caam ministre des affaires étrangères moom lu yónni ni ko demal ci sëñ Fallou boo demee ne ko moo fi di jullit di boroom xam-xam man du ma jullit katolik la na woo ñii yar yee leen yedd leen ñu bàyyi xëccoo bi ñuy xëccoo sëñ Falilou ginnaaw mbokkum Cheikh Abdoul Aziz la mu daal koy woo mu ñëw mu ne ko waaw lu dox sa diggante ak ma Lamine Diène sëñ Abdou nettali ko mu ne ko yow xanaa danga ngaa yow yilimaan nga ci dëkk bi nga dëkk boo demee ndakaaru gan nga fa nan ngay bàyyee yilimaan gi nga fi nga dëkk julli jumaa ware la fi ngay dem ci foo xam ne julli jumaa waru la fa nit ña fa nekk itam nan la ñuy nangoo nga di leen jiite te jumaa waru la nel mott laa la wax dem ci ma ne ko sëñ Falilou moo réglé muy ma nii la demee waaye nun su duñu xëccoo ay jiiti ki yëf lanuy xëccoo daal mooy jëkk def warugar ak lanu yàlla digal nu jiitu ci loolu moom la def mu ne ma waaw ndax seen tariqa bi am na wérd ma ne ko naam alwirdul maaxuudu min allahi bi wasati rasulihi mu ne ah alwirdul maaxuudu min allahi bi wasati rasulihi ma ne ko naam mu ne ma hal taxfazu mokkal nga ko ndax ma ne ko waaw mu ne ma tari ma tari ba mu jeex mu daal ne ma ah saxiix annahu maaxuudu min allahi bi wasati rasulihi wér na ne mi ngi jóge ci yàlla jaar ci yonante ndax li ci nekk lépp alquran la ak xadis alquran min allahi bi wasati rasuli waaw lenn na ci rek laa ci gis loo xam ne lii laysa min allahi bi wasati rasuli muy salaatu fatiha bi ma ci gis ndax salaatu fatiha Mouhamadul Bakri moo ko def Bakri tarixa tarixa la Bakriya tarixa la bu Bakri dëkk ca Bagdad yantasibuna ila sayidina Abu Bakar moo tax ñu tuddee ko Bakriya waaw ma ne ko salaatul fatiha laysa min al wird bokkul ci wird li ko ci dugal mooy sëriñ tuuba bi ko yàlla yóbboo bi ko tubaab yi yóbboo di ko nattu ci dëkk ba ñuy wax Lambaréné te daaj daaji arab yépp di fukki daaj ak juróom-benn daaj bu ci ne tagge na ko yu rasulullaay ay yooni yooni yooni yoon mu gis daajub gaas daaj la bopp naar ganaar yi ñoo koy ñoo koy waye ñoo ko fent mu gis daajub gaas mu neex lool mu ne daal yii daaj daal warees na ci tagg yonante bi daal di jël daaj boobee def ko muy mawaahibul ko mawaahib bismil daaj la boo xam ne amul ci daaji arab yi déedéet gaaf la bismillaahi yamuduhay ba mu defee xasida ga ba noppi nag ba ñaan ca tarjamaan ja ne wajalha mimma tataganna biha xóoruka al hiin wal wildaan maa ngi la ñaan yow yàlla sama xasida gi ñu di ko jàng ba bu demee àjjana sax xóorul ay ni ak wildaan ya di ko misigee di way Muhammadul Bakri daal ñëw ci moom ne ko yonent bi noon na man sanna sannatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri an yuqasa min ujurihim shay kon nag dimbali ma ginnaaw li nga ñaan yàlla may na la ko te ku jàng sa xasida gi jàngaale sama salaatu bi dimbali ma sarax ma dugalal ma salaatul fatiha ci sa wérdu bi sa xasida gi ku wa defee kenn ku ne di jàng euh, kii looloo tax mu dugal ko ci tarjamaan bi waaye du lu muy barkeeloo ci moom kee moo ko yalwaan ne ko sarax ma dugalal ma ko ci ku jàng sa xasida jàng ko ma am ci tuyaaba waaye barkeeluwu ci moom bi nga xamee ne sunu boroom euh, yabal na rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu di ko sax al wirdul maxuudu lay allahi wa sit yi kooku it dal di koy gàttandooti dogaleeti ko ne ko li ma sarax ma dugalal ma ko ci sa wér bi ku ko jàng ma am ci tuyaaba loolu mooy li ko ci indi mu ne ma sax ndax am na ay wér sart mu ne ko juróom-ñaari sart sart bu njëkk ba mooy taallumu maa yajibu ala kulli mukallaf am murit waroo ko doon te jàngoo li nga xam ne mooy safarat loolu mooy première sart bi deuxième sart bi boo jullee suuba ba noppi jàng ko boo jullee tàkkusaan ba noppi bala ngaa julli timis jàng ko ñetteelu sart bi mooy diggante bi nga koy jàng ci suba bala nga koo jàng ci ngoon war nga fee jàng alxuraan boo mokkalee alxuraan ñaari isib ak ñaar robo force la boo mokkalu alxuraan fokk nga jàng ci diggante bi lu bokk ci àqu mooy ñetteel bi ñeenteel bi fonk julleeg mbooloo juróomeel bi foo dégg nit ku baax dem ziyaara ji ko foo dégg nit ku baax dem ziyaara ji mooy sartu juróom juróomeel bi juróom benneel bi mooy tarkul kabaayiri kulliya bàyyi bakkaar yu mag yépp juróom ñetteel bi juróom ñaareel bi mooy lépp looy def na yàlla tax nga def ko bul jaamu yàlla mukk ngir tàbbi àjjana bul bañ a mooy yàlla mukk ngir bañ ragal safara bul bàyyi mooy yàlla mukk loo ciy def da koy def ngir yàlla mi la moom digal la ko bu loo ciy bàyyi nga bàyyi ko ngir yàlla mi la moom tere la ko waaye bu ci feenu dara mu ne ma lam ara tariqatan awfaq lil islam ka tariqati mihadi musumaa gis benn tariqa bu dëppoo ak lislaam bu gën dëppoo ak lislaam ne seen tariqa moom sëriñu sëriñ si Mouhamadou Alwaani Cheikh Mahmoud Alwaani